amis téléspectateurs de Malika TV c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Actu Show ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax a baax ci seen émission bi nga xam tout le temps dañ ci dalal ay gan di waxtaane actualité di waxtaane lépp li nga xamante ne euh, moom ñoom ci loolu la ñuy yëngu alors tey nag euh, comme ni ngeen ko xamee actualité réew mi euh, bëri na ci kii waaye li ci gën a wund mooy politique ak élection locale yi nga xamante ne dëgmal nañ ko waye tamit fani ci walum li nga xam moy coronavirus bi ñong ci dégg un nouveau variant bo xamantene ne sax am nañu ay cas yo xam ne jot nañ koo gis fii ci Sénégal même bu dee sax déggaat nañ ne cas yooyu jot nañ koo saafara en tout cas loolu yëpp moom la ñu bëgg waxtaane tey alors pour en parler euh, moo tax ñu dalal le euh, euh, moo du Oumy kan ñu gën ko xam ci professeur Bamba Kane di professeur agrégé des universités du Sénégal xam-xam màcc lool ci wàllum wérgu yaram salaamaaleykum professeur Bamba Kane maaleykum salaam Seydou nuru maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur u Malika TV ñiy seetaan yëpp mm-hmm. Euh, fii ci Sénégal ak ci mhm. alors comme j'ai dit tout à l'heure professeur. donc dinañ waxtaane li nga xamante moy walum wàllum élection locale yi ñu dëgmal euh, ci kanam tuuti aussi dinañ waxtaane walum wér-gu-yaram parce que xamnañ nañ ne coronavirus bu muy doga ñëw Sénégal liggéey nga ci liggéey bu am solo ci wetu président de la République mhm. d'ailleurs euh, ci élection locale yi ñu dëgmal professeur Bambakan di fàttali ne aussi nekkoon nga ministre conseiller fofu ci diwan présidence de la République waaye nak mu melni ni dañoo xëy rek gis la Euh, ci listu ci beneen bannière muy euh, euh, parti bi di Union Citoyenne bunt bi lan moo indi divorce boobu yow ak Benno Bokk Yaakaar. waaw jërëjëf Seydou Nourou waaw loolu nag bon defe naa ni waxtaan naa ci lu bëree bari ci fu bëri fu ma jaax. Mm-hmm. ndax man yàlla dafa dogal président de la république ci sañ-sañam. Mm-hmm. ak ci coobareem. Mm-hmm.

Euh, Nima, euh, Bamba euh, ndaw te yëg am nga xam-xam bu la yalla denk mhm. ma nga ñëw dimbali ma ma ci luy doxal Sénégal mu jëm ci kanam mhm. man nangul ko ko sans aucune condition man président bi may nommé amul benn condition mako jox amul lenn lo xamné tam jox na mako en contrepartie mhm. du xaalis du kër du auto du lenn man nangul ko euh nekk ci di conseiller ci plus lu jëm ci yaram euh, enseignement supérieur parce que ñaari euh, ponk ci la suma xam-xam mhm. mais ba nommé que ma doon tamit responsable politique ci APR mhm. euh, li nga xam malheureusement moom constaté woon jaare boobu mooy mhm. ki nga di Aliou ne at lépp loo xamante ne rek euh, nit mu ngi koy def pour gàllankoor nit ki. def na ko pour gàllankoor ma pour bañ ma avancer ci ci sur le plan politique. Mhm. au début sax comprendre ma parce que man dama jàppoon ne bokk ñu topp ay ambition. mais bi ma demee ba ci biir laa xam ne que moom li mu bëgg mooy nekk ci kaw ñeneen ñi nekk ci suuf ñëpp kenn du émerger te loolu moom la doxal vis-à-vis de cadre yi nekk Guédiawaye yëpp alors donc nak, euh, lol nak, ma koy muñ di ko muñ diko ko muñ di muñ ba mhm. ah ren aussi mu demee noo xam te ne euh, ci ay sources yu wóor mhm. euh, ma waroon a nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci commune bi ma muy commune Sam Notaire effectivement alors biñ ma ko waxee tamit ci am tuuti sikki sàkk parce que ni tamit candidat wu Benno Bokk wara a ak Aliou Sall di battre campagne au niveau de Guédiawaye lu doon metti lay nek parce que mhm. Aliou Sall ku ne xam na ni amatul trop crédibilité ci Guédiawaye manam nit ñi bëgguñu ko lool mom moy xam moy mooy dëgg xam nañ ci dellu ci wat mhm. donc euh, mais loolu sax moom dem na ba ci biir mu xeex loolu ne loolu du fi amee parce que dafa gëm ni Bamba moom warul am dara ci ci ci ci. kon moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo xeex sa candidature. voilà donc benn instant aussi je me suis dit que euh, président bu fekkente ne à chaque fois mu am yéene am lu mu am yéene ci man bu ko buggee def rakam wañ loo xam ne ko loolu doo ko fi defee mu mujjee mu mujjee sedde mu nangul ko ko mu nangul ko ko mhm. benn moment aussi nit soo gëmee yàlla euh, da ngay toog benn moment boo xam ne da nga leen di delloo seen yëf nag des ak yàlla ni nga xam ne ku des ak moom ñàkkoo dara donc loolu moo tax benn mhm. moment j'ai fait le choix réfléchir fekk bien avant depuis deux ans ñi ma àndal ñëpp bis bu yàlla sàkk dañ may teg pression di ma wax ne ma dama war a génn dama war a bàyyi mais mané ba xamné fi mané ma non seulement bokotuma ak ñom xalat sur le plan politique bokotuma ak ñom ay valeurs sur le plan purement humain euh, gisatuma ne am naa fi ben avenir ben écoute euh, lenn moy moy moy dess ñaari choix moy am nga tok avantage yu neew yi ngay am nga tok daldi di bokkatu sa ruq di jouir ci avantage yooyu nonu wala nga gëm yalla delloo len ko dem wutali gi sa bop ci ci dynamique je veux la nek ci dynamique bobu nga alors euh, on va rester un peu li nga xamantene bi nga euh, président de la république. hormis comme tu as dit amna ay veux dire que nga ko fa dund ci côté comme veux ko waxe veux ci nu la mais ci conseil ak est-ce que président na nit neex na

jàpp ma ne war nga mën a liggéey ak moom ba ngeen tàqali ngay génn di ko fragiliser wala ngay wax loo xam te ne mën nañ ko xeebee wala mën nañ ko ko yabee euh, président liggéey naa mom, moom ci lu baree bari euh, lu baree bari mu déglu ma ci am na lu baree bari lu ay changement yoo xam ne ci en matière de santé ak ci yenn mati en matière de d'enseignement supérieur euh, daanaa ko ci wax sama xalaat mu wala mu laaj ma ci loo xam ne su ma ko waxee dina ci tenir compte bon am na nag loo xam ne tamit daaw ci tenir compte. Mhm. mais loolu tamit ak présidence ñoo ñoo ànd. ndax boo nekkee président arbitrage ngay def. Mhm. des fois nga jël décision yoo xamante ne nii. Mhm. bon xëy na sax du ànd ak li nga xam ne moom la la conseil bi wax. mais euh, conseil bi dafa war a nangu loolu parce que am na yeneen critères yoo xam ne day entrer en jeu. yoo xam ne forcément yow doo ko xam. mais li nga xam ne moo am ba am mooy président moom képp kuy nekk conseiller dans l'action pas dans la réaction parce que bu fekkee ne da ngay rek di xaar téléphone ne la wax ma wala souvent souvent souvent mais c'est très rare yow yaay toog gis ne ci sa xam-xam la màcc te fi mu jëm baaxul nga ko ne président ma gis mu jëm baaxul ak lay su ko

mais liggéey ministre conseil lu lu lu le am solo la daf ndax euh, souvent ministre conseil ci ni ko gisee man dafa quelqu'un de très technique. Mhm. koo xam te ne li mu conseiller président lu mu war am xam-xam la. c'est pas des postes politiques. normalement on a postes politiques. politique. bon après nag. Mhm. est-ce que c'est toujours le cas. Mhm. loolu loolu loolu loolu je ne sais pas mais ministre conseiller dafa nekk lu technique léegi nag su fekkee ne yow da nga ministre conseiller ba y yalla def nga un responsable politique comme man C'est mom musiba la quoi mm. ah non non da ngay son mm-hmm. parce que nit ñi wuñu ministre conseiller ak ministre bu am portefeuille am xamé wuñ ko mm-hmm. te so nekkee ministre conseiller di am say indemnité ministre parce que man déjà je suis professeur à l'université donc mon salaire professeur d'université là et mm-hmm. ak sama indemnité de ministre ñu jox la auto et tout ça là donc yow bëriwuloo trop man marge de manœuvre maanaam koom bi nga xam ne moom la nit ñi di yaakaar ci yow. Mhm. koom boobu noonu yow doo ko am léegi nag bu la yàlla natoo nga nekk ci benn dëkk bu mel ni géejawaay nga xam ne euh, coono bi xaw na fa law. xaw na bëri. Mhm. nit ñi ku am soxla seen xel ci yow lay ñëw. yow da ngay mujj sax yow li nga daan am akas néew en tant que fonctionnaire. Mhm. moom ngay mujjee jël di ko boole ak li ñu lay jox. di ko jox nit ñi bu fekkente ne nit ñi am nga ci moom yërmande comme ni ma amee woon ci ñoom yërmande. donc loolu moom mooy mooy difficulté bi. bon après nag euh, c' est vrai que des fois nga gis ay ministre conseil yoo xam ah bon doo xam réellement lan moo motiver dëgg-dëgg président pour pour mu leen ci loolu mu merci beaucoup professeur mm-hmm. euh, Babacar moom la ñu àndal ci li nga xamante ne mooy Actu Show alors ñu ñëw tuuti ci li nga xamante ne mooy euh, élection locale yi union citoyenne buntu bi mu mel ni finalement moom daal frustré yëpp la dajale rek ne leen kaay ci sama liste waaw euh, bon man ni ma ko duma japp né frustré yi la dajale. Mhm. union citoyenne bunti bi pour man dafa dajalé ñi am fit nangoo jël seen responsabilité. Mhm. parce que euh, bon gis na ni élection locale waruñu fa woon sax nek di xaar par exemple euh, président de la république qui mouvement présidentiel bi muy décider ñan ñoy ñan ñoy ay candidat ou non parce que affaire gox la wax. Mhm. comme affaire gox la wax képp ko xam te yow wolu nga sa bop. gëm ni yow gox bi nga dëkk yaa fa gën a représentatif liggéey nga fa liggéey boo xamante ne nii askan bi mën nañu am ci yow confiance seq nga ak ñoom ay teraanga yoo xam ne am nañ ci yow confiance dañ la war a bàyyi nga dem natt sa bopp mm-hmm. mais du doonul loo xam ne dañu war a toog rek di décider ne kii moo war a nekk maire fii kii moo war a nekk maire fële mm-hmm. loolu euh, donc ma gis ne union citoyenne bunt bi bëri na tey ñoo xam te ne fa ñu ne newoon ànd ñu foofu ca na muy doxee effectivement ñu amoon choix wu toog noppi mm-hmm. mais ñu am am seen fit génn biñu genné nak union citoyenne buntu bi jox leen occasion ñom ñu ñu ñu ñu mën exprimer seen uh-huh. seen seen gis-gis uh-huh. man non la ko gissé euh, di gërëm encore une fois le président Ibrahim Mbow mi président union citoyenne buntu bi uh-huh. di gërëm bu baax député euh, Théodore Chérif Monté nga xamné vraiment liggéey bi mu liggéey sur le plan administratif euh, machallah di ñaanal nak candidat yaawu UC buntu bi yépp yi nekk Sénégal yépp yalla may len dam parce que japp na ni je crois bien que après Benno Bokk yakar est-ce que du ñom ñoy deuxième ñu upp lu ñu lu ñu investir sur le territoire national waaw effectivement j'ai vu qu'ils ont fait quand même ay daf melni ñom euh tay rek ma ngi déglu mom euh, honorable député donc muy mandat muy seen mandataire national donc ma ngi koy dégg mu wax même ba ci kaw Soham Wardini mhm. que ñom ñoo sax ñoo woo Soham Wardini mhm. ne ko cas est-ce que yow c'était le cas bon man euh, du ma ko gisee ne c'est le cas disons que ni man ma entré en contact ak ñoom. Mhm. par l'intermédiaire d'un ami ça dama am sama benn xarit boo xam ne moom moo leen wax sama sama cas. effectivement bi ma leen waxee bi leen kooku waxee sama cas seen président woo ma. mu tomber ak ma bokk ak ñoom gis-gis. bokk ak ñoom valeurs yi ñuy véhiculer. ñu d'accord donc mën naa wax ne c'est de commun accord la ñu la ñu la ñu la ñu ànd. man nak maay seen seul candidat au niveau de Guédiawaye et au niveau de la commune de Sam Notaire. Euh, ñu doon nag euh, parti boo xam ne tey euh, am nañu avenir trop quoi. Hein, am nañu avenir parce que ay nit ñu am valeur lañu. effectivement ndax ñi ñu bëree bëri gis nañ nekk ni mouvement présidentiel la ñu bokkoon. mais ci ci élection locale yi ñu jëm ni dañoo demal seen yoonu bopp. parce que gisuñu seen bopp ci ci ci mouvance présidentielle bi ni muy doxee te loolu tey. Euh, pratiquement parti nek nekk ci mouvement présidentiel bi ñi ko ci sañ bariwul ah gis nañu tay PS gis nañu AFP ah gis nañ fi parti yo xamanteni ne nii pratiquement existé tuñu parce que lu leen tek rek ñu tagoo ñom lañ amoon ci ay mairie sax tée ko ci ci ci élection locale yi ni presque APR dafa ñëw nangu yooyu yëpp te ñu nangu ko ñom tam sëgg mhm. ñi nak nangu ñu lolu démal sen bop té je pense que lolu c'est c'est à saluer. c'est important et, et puis euh, li ma neex tey ci euh, tout le temps yu may cadre yu may dégg mu wax muy honorable député moo naan moo naan euh, politicien day am métier c'est important. Mhm. Euh, que politicien yi nga xamante ne kenn xamul lu ñu doon <laughs> donc voilà c'est compliqué mais moom tout le temps day wax que ne politicien day am métier et je pense que yow bok nga ci comme je l'ai dit tout à l'heure nga nek professeur agrégé des universités du euh, Sénégal alors euh, nga nga nga nga nga ci ci ville bu bu bruit bu c'est la uh-huh. donc euh, ville de Guédiawaye ak aussi commune bu bu bu Sam Notaire alors avec tous ces poids politiques qui sont autour de cette ville. Uh-huh. parce que comme tu as dit il y a il y il y a il y a Ahmed Aïdara. Mm-hmm. donc euh, est-ce que tey quand même euh, nat nga nattaat ba gis que né euh, ces gens-là ils représentent quelque chose à Guédiawaye waaw xam nga Seydou Nourou li nga xam tane euh, aussi nit ñi dañ ko wara xam mm-hmm. te ñu bari xamuñu ko moy mm-hmm. que Aliou Sall en 2014 la njëkk a ñëw Guédiawaye bi muy nekk suñu maire ñëw Guédiawaye di présenté pour nekk maire amul kenn ku won jakarlo jàkkaarloog moom ku dul man Aliou Sall en réalité man la gagné pour nekk maire Guédiawaye ok bon loolu c' c'est bon à savoir. Ouais. donc euh, bi may gagné aussi Bobu, ni ma gagné ci mode de scrutin bi parce que Bobu, uh-huh. conseil nous nit ñi dañuy voté ay liste. Uh-huh. conseil daje fal maire bi. conseil yooyu nag bu ñu mësaan daje uh-huh. des fois ñu ëpp ci ñoom. lu leen neex la ñuy def après dootuñu xool ñi nga xamné ñom ñoom ñoo leen fal. lañ lañ leen falé ndax Aliou Sall bi koy bi muy bi muy falu nekk maire en 2014. samay propre conseil man jour bobu dañoo voter contre man mu mel ni xëy na am na fu mu jaar ak ñoom. waaw ah, mais xam nañ on sait loolu jaroon nga koy nëbb on sait que ne conseil yu bëri lañ leen jëndoon. ci ci élection yi donc donc donc loolu c' hyper important. donc man. ci très grave d'ailleurs te man ci continuité mais nak loolu jeex na parce que tey. waaw ah. population bi nit ñi ñooy fal maire bi en fait. effectivement tey Aliou Sall amul benn chance su gagné Guédiawaye moom yëgul nak nag parce que amna na ñu ko wër di ko naax di ko gëmloo ne et cetera mais à partir du moment où nit ñi ñooy dem dugg ci urne yi voter directement te ci vote bobu non ci le maire bi di découlé mom amul ben chance parce que euh, géejowaay munoo dox ba gis nit à l'exception de nit ñi nga xamné ñom ñoom am nañ ci mom intérêt directement nga xamné amna lu mu leen di jox am lu mu leen di défal à l'exception de minorité bu ndaw bobu non munoo dox géejowaay ba gis nit ko bëgg wala ko ànd ak Aliou Sall c'est incroyable mais c'est exactement la la réalité légui nak nit ñi seen problème mo doon lan mo doon que bëgguñu Aliou Sall mais aussi bëgg nañu bu fi Aliou Sall di joggé ñu tek fa ko xam te ku am dayo la am crédibilité am xam-xam bo xamné ne mën na yore Guédiawaye parce que Guédiawaye c'est pas n'importe quoi donc entre ñi nga xam te nit ñi tamit dañ leen jappé quand même ay genre comédien quoi na ma yàlla baal ci terme bi non non c'est c'est la vérité ak ki nga xam te quand tu parles de ah, xam-xam ak comédien Ahmed Aïdara non non non waxuma Ahmed Ahmed euh, waxuma Ahmed mais l'essentiel moy que nit ñi boy waxtaan ak mm-hmm. avant man may may nekk candidat. Mm. nit ñëpp lan lañ lay wax non man day ren du ma lu tax doo voté non parce que man du ma voté Aliou Sall. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne tam duma leen voté parce que mm-hmm. nekkuñu ay candidats yu sérieux mm-hmm. ñooñu bi ñu yëgee sama candidature ñoom ñëpp dañu dañu def ouf de soulagement dañu dañu dañu dañu feex ndax dañu jàpp ne am nañu seen benn doom boo xam ne doomu géejawaay la. juddoo géejawaay yaroo ay màggee fa. ba pare jàpp nañ ne kooku am na profil ak carrière boo xam ne war na mën a yore géejawaay donc moo tax ma lay wax ni ñooñu ñooñu ëpp peut-être ñoo ma ëpp ay moyen c'est la vérité bon xaalis bi moom mu ngi tuuru bu baax man géejawaay fu ma romb fu ma dem ba gisanteeg ñoom ba dem rek la lendemain am gars yi jaar fa tour fa xaalis mais loolu taxul taxul ñu gagné candidat yi ñu ñooñu ñu ëpp xaalis mm-hmm. dama leen di gis ak seen i seen ay caravane ay oto yu mais nit ñi dañuy yeewu léegi en fait c'est nit ñi li ñu soxla mooy koo xam te ne euh, njariñu gox bi moom moo ko tax a jóg te man euh, jàpp naa ni euh, très honnêtement en toute humilité su fekkonte ne man lu ma wut kese mooy tax ma dugg ci politique mhm. non duma ci dugg mhm. ndax dama koy wax fu bëri mhm. su ma jabar bi may nekkal bis bu yàlla sàkk Comme xam ko ni yow bu démé ci mom wax ak mom bambakan baye politique. dem na ci mom ne politique parce que. il est en train de s'appauvrir et cetera. si mhm. professeur agrégé à la fac de médecine. Mhm. chef de service pneumologie bu hôpital Dalal ñun ñaar am. Mhm. bu yémon si ñun. yem si suñu njaboot. am ben ben problème mais mais. ñun suñu dëkk suñu réew moo ñu jaral loolu suñu gox jaral ñu loolu. Mhm. am na nag ay sacrifice yu méttee métti yooy def. Mhm. yoo xam ne barki dem rek maa ngi koy kenn man li may gañe néew li mu doon tuuti tuuti tuuti bëri na ay xale yoo xam ne tey géejaay bi ñu amee bac. Mhm. am prescription war a dem en France. seeni wayjur amuñu lu mu leen yóbboo. bëri nañu ñu laax ñoo xam ne. mënuma leen lim man maa leen fayal ñu dem France jàngi. ren la sama doom bu jigéen am bag bi ma amee bac ren aw ma lu ma ko fayalee moom mu dem jàngi. je ne sais pas ba xam yaa ngi dégg yaa dégg. bu baax bu baax loolu nag. Mhm. ay genre sacrifice la. yoo xam ne sa doom yi parfois sax ñu ñu xaw la ci. ñu xaw la ci mere effectivement mais nag. Mhm. yàlla ku mu naru la fay du la liggéeyloo. dëgg la li ñuy def nii cun pour ñun liggéeyal yàlla la quoi. Mhm. te géejawaay xeex pour géejawaay dellu si ci loxo doomu géejawaay loolu pour man ci liggéeyal yàlla la bokk parce géejawaay dañ ko togn dañ ko tégal ben tâche bo xamné nit ko xamné ne ci dëkk bi bokkoo fa xamoo fa dara parce que tout simplement sa moy président nga ñëw imposer ñu dëkk ci dëkk bi té bis bu yalla sak nit ñi gis ay signes yu wane ne yow bokkoo ci ñi nga ñi ngay diriger mhm. soy génn armada bi lay escorter kenn du la jege parce que yow ñemewuloo population bi nga xamné ya yaa diriger mhm. sa kër kenn du fa jege

yenn mbooloo yi parce que fu mu génnee ñu yuuxu. Euh, sama 400000 alors loolu dem ba. Euh, est-ce que tey du ñu wax que ne kon du Ahmed Aïdara mooy sa mooy mooy sa mooy sa adversaire biir Guédiawaye parce que parce que barki démb gis naa moom mu koy justifier nee moom ci silence la bëgg a liggéeyee alors xam na ne politique ak silence àndul alors euh, est-ce que du ay dara mais Ahmed euh, quoi que l'on ñi ko ngemb aussi. Euh, am na am nañu xaw am nañu doole parce que Pastef ku mu nekk sa ginnaaw Malick gàkku ak ñi ko ngemb yëpp est-ce que tey professeur du du du du du Ahmed Aïdara sa xarit mu nga ne comédien la xaw ma lan la. mooy sa adversaire direct. du moom mooy comédien ah man tuddee ma comédien Ahmed sama sama mbokk la sax ah. la am nañ sax ay lien de parenté. Mm-hmm. mais euh, c'est vrai que moo ñu ëpp xaalis ah d'après li ma gis ah parce que man gis mu am ay caravane ay oto yu rafet bon man suñu toll nii. ñu ngi mais mais professeur Ahmed mu ngi laa ëpp xaalis. non mais mais mais mais. Euh, professeur euh, agrégé. Ah, ci yoon. xam nga xam nga ci yoon. ci yoon ah bu dëkk bi doon jaar yoon rek. waaw un professeur d'université. waaw wax dëgg yàlla moo war a ëpp xaalis un journaliste. vraiment maintenant nag. Hmm. naka la journaliste bi mën a def ba am ay millions ay millions millions. waaw ba ëppale xaalis professeur d'université bi loolu dafa nekk yoo xam ne ay question la yoo xam ne. bay bay sénégalais yi. bay dawal avion man oto bi avion laa ko tuddee ah, quoi. waaw waaw mais mais xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp xam nga yooyu. Hmm. après nit ñi. Hmm. ñoo ci war a peut-être bàyyi xel. quoi effectivement parce que tamit bon benn instant. Euh, soxla nañu ay nit ñoo xam te ne ay nit ñu set la ñuy nekk. effectivement fi ñu jëlee seen xaalis ñu xam ne ñii fii lañ jëlee seen xaalis man Sénégal rek laa gis. Mhm. ay fonctionnaires yu nekk ay milliardaires quoi. man Sénégal laa puissant peut-être ak benn dëkk boo xam ne du ma ko tudd pour ne pas créer un incident diplomatique. Mhm. un fonctionnaire kuy liggéey ñu lay fay ngay wàcc rek ñu fay la. waaw waroo mën a nekk un milliardaire wala un millionnaire. mais nag maintenant mhm. maintenant nag nit ñi ñoom ñooy xool ba xam ñoom lan la ñu bëgg ci.

mais ci sa liggéey bi ngay liggéey da nga wara xam fan la liggéey bi yem ak fan la say intérêt personnel am parce que euh, conflit d'intérêt parfois am man man par exemple euh, damay déglu radio parfois ñen ñi nga xam ne dañu nekk en compétition ak man guedjaway nek candidat ci sen bir métier de journaliste duñ wax mukk duñ tuddu bambakan Kane quoi quoi duñ ko tuddu uh-huh. parce que buñ ko tuddé bambakan té pourtant dañuy tuddu sen bop yëkkati seen bopp et cetera loolu nag. dafa nekk ay conflit d'intérêt yoo xam ne man tey jii. mais d'ailleurs c'est des ah. c'est des c'est des choses yoo xam ne suñu charte liggéey daf ko daf ko tere. quand tu choisis de faire la politique da ngay bàyyi journalisme. mais voilà da koy bàyyi complètement on a vu le professeur de le, le cas de de de Latif. oui ah ba mu bëggee def politique. mais bàyyi journalisme mais complètement mais mooy yoon même. ah, ah ak ñeneen ak ñeneen. même en Europe. boo gisee en en Europe partout. Ouais il y a des journalistes qui sont devenus président de la République. Hein. Ouais, ouais. mais benn moment dañuy baye journalisme bi dem defi ji li def parce qu'à partir du moment où amna conflit d'intérêt, ni nga mëna a traiter information bi dotul nek ben. waaw ah, ok je pense que. Euh, on peut citer même le le cas de Éric Zemmour bi nga xamantene ne mu ngi wut président de France ba mu ko ba ko tàmbalee dafa dafa arrêté lepp lu nga xam moy mooy mooy télé en tout cas moy yoon équité bob, et puis sax loolu mooy euh, liggéey journaliste dafa am lu bëri lu mu andal te lolu moy tax nit ñi naw la lolu moy tax nit ñi nit ñi jox la cër alors professeur. Euh, ville de Guédiawaye commune de Sam Notaire euh, lan nga leen bëgg indi loo xamante ne mën nañ ci jàpp ba ne ok professeur nañ ko jox suñu ville nañ ko jox suñu commune. waaw am nañu benn programme boo xam ne programme bu ambitieux la. Mhm. ndax euh, dañu jàpp ne ñi fa nekk bu fekkonte ne li ñu waroon def def nañ ko kon peut-être ñun suñu candidature mën nañ ko seetaat. Mhm. mais commune de Sam Notaire ak ville de Guédiawaye dafa am benn jàngoro boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk. Nous ñaar ñep ku ci nekk maire bi fa nekk. Mm. c'est grave parce que autant Aliou Sall way mm-hmm. comme ni ko mm-hmm. autant Sam am maire bu Aminata Kanté. Mm-hmm. de dëkkul Sam xamul lan xew di di di xamu fa dara bilan bilan bi kenn mm. c'est-à-dire que voilà ben maire bo xamné amul bilan du tout nga xamné maireu grand parti la ci jamono yi nga xam tane Benno Bokk yakar bu gañee ñom dañuy seddo maire yi né conseil bon telle commune tek leen fa diw telle commune tek leen fa diw ci non lañ ko tegee mu nek maireu u ok lolu motax mu mun nek tay tay bir grand parti mhm. amna fa ay nit ñu ma xam yo xamné ne nit ñu am valeur mhm. ñom xam nañu xel que ni kii waratu waru woon mën a candidat mhm. mais comme comme ci chartu saftu euh, euh, nu mu tëti euh, yeewi askan bi. Mhm. ñom dañ né bép gox bo xamné déjà amna maire bo xamné ci ci yewi askan bi la bok duñu wot ben candidat buy concurrence maire loolu moo tax loolu kese moo na mu na la nekkaat. ce qu'ils n'ont pas respecté à Dakar. voilà très bien ce qu'ils n'ont pas respecté à Dakar donc lolu mom motax tay ji ni ku melni ki madame Kanté di nekk tay maire mais même grand parti bi ko fa sampone ñi ëpp ci grand parti duñ ko voter parce que xam nañ ne amul munoo teg sa bët ci ci ci ci ci ci loo xam ne liggéey na ko fa. Mm-hmm. en terme de sécurité en terme d' éclairage école yi yoonam nekku ci de de de euh, quartier yi inondé mel ni suma quartier bi ma dëkk man cité Jonkoob nga xam ne chaque nawet dañuy génn suñu ay kër. Mm-hmm. jéemu ci def lenn. tali yi yàqu benn yàqu boo xam ne tali bi muy jaar nga xam ne mooy kanamu mairie Sam Notaire boo fa jaaree tey population de temps en temps ñooy dajale seen xaalis jël ay camion grava mhm. def pour di mën donc programme la boo xam programme bu yaatu mhm. bu en tant que tel géejawaay euh, gis nañu ne li ñu a am mu ëpp solo bande yi littoral littoral or amul pétrole amul dara man espéré développement géejawaay jógee Euh, euh, vraiment jëm ci kanam. Mhm. nga xam ne tey boo fa jaaree sa xol dafay jeex. bande filao yi lan lañ ko def daggate ko may ko ay ñu am doole waa géej waaye gis ñu ci seen bopp amuñu ci dara nga xam ne tey euh, bande filao yi noonu man dama yàgg a rêvé. Mhm. que ni deuxième université de Dakar ci ci littoralu géej waaye lay nekk.

nga xamné plage bobu c'est plage bu ko gëna rafet amul nit ñi waroon mën a ñëw difa def sen sport jakarlo brise bi nga xamné ne dina baax ci seen yaram et tout dem na ba xalaat né fofu sax waron na mëna am ñu tuddé ay parc éolien yo xam né dañ ko fay teg mhm. muy générer énergie courant bo xamné non seulement bu boobaa waa Géejawaay pour man sen facture courant war na mëna wañéku mais facture courant wa Sénégal sax mëna na mhm. mais tay à la place de tout ça lan lañ fa def dagg ko def fa ay kër kër ban njariñ la am ñi ngay jox kër ñoom ñëpp ku ci nekk am nga possibilité ñoom am nañu kàttanu dem jëndi ay terrain comme tous les sénégalais tabax fa seen kër nga jël ko daggate ko jox leen ko ah euh, mu doon loo xam ne nii tey waa Géejawaay yëpp la metti ah Seydou Nourou mhm. euh, barki démb dama dem ci benn rajo RFM pour na pas mhm. ñu invité ma ma leen di expliquer ne leen Géejawaay dañ ko tooñ ñaari yoon mhm. histoire u Géejawaay Géejawaay mu ngi nekkoon tey entre HLM ak Gibraltar

on m'explique que le fait que nous ñu génération bu lu yaq sen jang Nous moment bi leen di déporter ñi nga xam te nañ ay mbokk yu Grand Dakar mais ñi ko amul. Mhm. ñëpp yóbbu seen doom à nous sen sen jang dafa yaq ñoñu nekk fa pendant presque 50 ans di jog di daanu di jog di daanu ba man bañ defaree VDN bi dem bi dem euh, romb di dem gàddaay bañ ko defaree laa ne problème am na. Mhm. parce que borom alal yi fii la ñuy jaar pour dem ay lagro seen tool yeeg yooyu. bu ñu gisee bande filao yi léegi ñu ñàkk ko. Mhm. effectivement ni ma ko waxee woon. noonu la amee ñi amoon doole. Mhm. sànni ñu géejawaay ñu fay jóg di daanu di mëq si suuf si ba ba géejawaay rafet neex a dëkk. ñooñu ñëwaat fekk ñu li ñu gën a am ëpp solo ñu nanguwaat ko ci loxo waa géejawaay. loolu nag mbécc la boo xam ne. wa géejaay ñoko mëna fajal seen bopp ta bokku na ci ni ñuy commencé diko faj mm-hmm. ñi fa nek ni muy maire bi fa nek mm-hmm. sax saaxee suuf si maire yi fa nek ñu jëlé leen fa tek fa ñoo xamanteni ne nii euh, ñu géejaay mo leen fay mo leen fay taxa nek bu ngok alors euh, pour yow euh, bande littérale bobu lan moy nek justice am

prévoir nañu ay place yoo xam ne ay artisans lañ fa yóbbu. Mm-hmm. mécaniciens yi nekk géej waaye amatuñ fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy liggéeyee. Mm-hmm. fu ñu toog ñu dàq leen dëgër pir leen di leen yóbbu ay jam ñaajo yow sax bu paanee géej waaye wala Dakar da nga koy da nga koy lengee ba jam ñaajo pour ñu defaral la. vraiment donc donc donc mm-hmm. ñun am nañu am nañu tey ay ay ay ay programme yoo xam ne yu leer. mën a sukkandiku ci ay partenaires yu nekk Sénégal ak yu nekk ci bitim réew ñoo xamante ni li fa desekas néew ñu war ko mën a euh, sauver.

Euh, du compétence bu bu mairie trop trop. Mhm. mais mairie tamit euh, am na loo xamante ne mën na ko ci war a mën a liggéey ci ci yow si sa programme est-ce que bàyyi nga xel côté sécurité bi foofu. gis nga sécurité bi. Mhm. bokk na ci déjà pour régler problème de sécurité bokk na ci déjà ay mbedd yu leer c'est hyper important. Mhm. tey géejawaay da ngay gis ay koñ yoo xam ne lampe du fa tàkk. xanaa ba élection yi di jub si. ba élection yi di jub si ñu ñëw taalal nit ñi lampe yi. loolu Euh, de de de jeunes yi bëri na ci jeunes yo xam te li tax ñuy adonné wu à la violence. Mhm. di agresser lu ci bari bari ci ñom da ci fekk né amuñu luñu def. effectivement amuñu luñu def jeunes yooyu tay jii nii am na noo leen di encadré ah euh, financer leen ci yenn formation yi yenn liggéey yi ñu war a liggéey nga jox leen ko parce que tam problème bi aussi loolu la da ngay gis mairie benn. minimum de liggéey bi mu war a mën a am jox ko jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk géejawaay dëkk ci goxu géejawaay yi dañ koy jël jéggaani ko jox ko ñeneen. tey dama lay jox benn exemple tey boo ñëwee mairie géejawaay ñaata nit ñoo fay liggéey ñoo xam ne dëkkuñu géejawaay xamuñu géejawaay ñu jël leen ci clientélisme boo xamante ni teguñu ko fenn. Hmm. ah maa ngi gis temps yi lay suma suma xarit Bassirou Diatta mu def benn benn benn vidéo boo xam ne. Hmm. li ci wax loolu c'est c'est symptomatique de la situation catastrophique bi Guédiawaye nekkee nga le directeur administratif et financier bu maire u Guédiawaye mhm. maire Gossas la maire Gossas mooy directeur <laughs> non mais non c'est pas sais pas. yaa ngay déglu quoi c'est grave ça c'est-à-dire que dañu Guédiawaye dañu ko piétiner daaf bu fina bu non daafu man bi ma vidéo yi man nag loolu yëguma ko na ah. man conseiller municipal la à Guédiawaye mais wax dëgg yàlla loolu man man man bi ma ko déggee mhm man dama né li non na ci teelu parce que li scandale la boo xam est-ce que dëgg la. Hum. mais bama gissé ay vidéo ñu wone meeru Gossas muy sante Aliou Sall ci liggéey muy liggéey yow yaangi Gossas lijeentil Gossas. Gossas Gossas nga xam ne papa ndeysaan bokk na am fa ay cosaanam amna fa. Hum. ña fa nek ciona bañ fa nekkee kenn mu la wax nu mu toll. nga bàyyi meeru Gossas diko jël muy nek dafu meeru Géejawaay. c'est grave. mais donc lool nak hum. lool est-ce que wa Géejawaay dañuy nangu rek élection jotaat mm. ñu ñew ku nekk ñu jox la ay francs mm-hmm. ah groupe nga jaar fa jox leen ay cinq cent mille lu mat personnes mm. cent personnes nga jox leen cinq francs kenn ku nekk na ah. est-ce que sax dina ko mat du ko sax ah. mm-hmm. yow est-ce que yow lolu ñu jox leen lolu ngeen pendant 7 ans mm-hmm. nit ki di di profité ci defe naa ni loolu loolu nit ñi war nañu te effectivement gëm naa ni nit ñi lañu yeewu yeewu nañu pour pour pour changer loolu. c'est important d'ailleurs ci l'as beaucoup bëggoon parce que dañuy xam nañ que ni union citoyenne bunt bi ñoom tout le temps dañuy dañuy prôner quand même ben ben politique bu ànd ak dignité ben politique bu bu disciplinée et tout ça donc ci campagne électorale bi.

ba ñàkk jàmm da nga fa bàyyi loolu nga doon wut dem wuti ji jàmm gis nañ ko ci yeneen dëkk yi donc man gis naa ni élection yi jarul euh, jarul waxante lu ñaaw man day wax dëgg yàlla du ma doxee noonu. Ah. jarul xeex jarul xuloo. le 23 janvier benn bis kese la ci bis yi. avant le 23 janvier Sénégal dafa am. Ah. après le 23 janvier Sénégal dafay am. léegi nag. nañu doxal jamm surtout surtout quand quand bi nga xamné moy quand au mouvement présidentiel bi. ndax ndax ñun suñu jamm suñu sécurité ñom ñoko yoré ñom ñoom ñoo yore force régalienne bi wara a parfois nga gis ay ay violence soqee ko ci ñom ci effectivement lool nak wax dëgg yàlla nekkul lo xam tane ne luñu luñu luñuy lu souhaité la. nañu dem ci élection ci jamm ku ñu gañee nga nangu ne gañe nañ la nga bañ fi indi benn jafé-jafé campagne bi ñu def ko de manière civilisée nit ñi dem voté qui Sénégal Sénégal Sénégal continuez merci beaucoup alors moi qui di que nous avons le professeur euh, Bamba Khan, donc di candidat euh, foofu ci ville bu et la commune bu Sam Notaire donc en qui. Euh, bañee union citoyenne euh, bunt bi professeur euh, dinañ ñëwaat tuuti ci politique waaye dama bëggoon ñu waxtaane wér yaram tuuti mhm. parce que sax mu xam màcc nañ ci te xam nañ ne aussi corona bi muy doog a ñëw Sénégal liggéey nga ci liggéey bu am solo ci wetu président de la République alors fan yi ñu daal di gis benn variant bu bees boo xamante ne judd na ba ñu gis sax ay ay ay mën nañ ko tuddee ay quatrième vague ci yenn réew macha allah donc ci Europe ak yooyu ñu ngi gis que ne euh, contamination yi ñu ngi jéggi dayoo. alors Sénégal euh, d'ailleurs euh, variant boobu ñuy duppee Omicron su ma juumulee. Mhm. donc euh, détect jotoon nañ ko fi détecté ba am ci ay ay quelques cas. Mhm. Euh, même bu dee sax tey dégg naa ñu ne cas yooyu wér na. Mhm. alors est-ce que mën na gaawe noonu cas yu ñu détecté barki démb. wér tey cest à man tey bi ma ko déggee xaw na ma ëlëm xaw ma nag. Ah. non mhm. xam nga xam nga Seydou Nourou. Mhm. gis nga euh, affaire coronavirus moom. Mhm. il faut que ñu waxante ci dëgg tuuti quoi. c'est important parce que dafay bëgg yàgg daal affaire bi. waaw xam nga. gis nga coronavirus waxi coronavirus. dina jeex ci àdduna bis bu ñu xamee ne du jeex. xaw ma na xam dégg nga olof yi ma lay wax. coronavirus dootul jóge ci àdduna. ñoom sax tubaab yi di wax nii ñoom ñoo la ko gën a xam. Hmm. am na nag peut-être yeneen lu leen tax a jóg loo xam ne peut-être man xaw ma ko. Hmm. mais li nga xam ne moo am ba am mooy. Hmm. coronavirus virus la boo xam ne dañ ko tuddee virus à ARN gis nga façon virus yooyu dañuy muté ñoom ñoom ala kulli al ñu bañ a moo jaaxal nit mais ñuy muté ala kulli alin day am. donc ñuy joxe ay mutant jóge nañ fi delta ñu ngi ci omicron. am na yeneen mutant yoo xam ne dana ñëwaat. ndax épidémie virale boo gisee àdduna day noonu lay jeexee finalement day am virus luy dund la loo xam ne moom day jur ay doom doom yi muy jur mook ñoom ñoo ñooy amul lenn leen di leen di wutale day day photocopier boppam virus gis nga buy photocopier boppam léeg-léeg nag mu joxe ay photocopie yoo xam ne day juum ci bi ñu koy photocopier joxe ay doom yoo xam ne mhm. dañu nuroo ak moom doom yoo xam ne ñoo ko gën a wex wala doom yo xam ñoko gëna ko lawet mhm. gis nga souvent bu épidémie bi di jeex mhm. non lay jeexee day togom yag mu joxé doom yo xam ñoko gëna ko gën a lawet gën koo lawet ba ku mu dal ab soj bu ndaw la lay dikkee wala mu dal sax yow do yëg ne dal na la mu wér mhm. loolu industrie pharmaceutique ak scientifique yi nekk ci àdduna bi yëpp xam nañ ko donc muy am ay mutant ñu koy def ciowlu ngandé ni nii rëy nii man comprendre ma loolu benn deuxièmement euh, ñu né Omicron mu ngi juddoo Afrique du Sud dañu tooñ waa Afrique du Sud kenn xamul fan la juddoo. waay dañ naan fa lañ ko découvrir fan lañ ko njëkkee gis. waay lu tax ñu njëkk ko gis Afrique du Sud mooy. Afrique du Sud centre yi nga xam ne dañu fort ci séquence génomique. yi ci gën a am xarañte foofu lañ nekk Afrique du mm. Omicron doon woon yàgg bañ gis ko Sénégal parce que amuñu xarañte boobu noonu. Mm. bu ko gis woon ñoom ñun duñ ko duñ def séquençage boobu pour gis ko. Mm. donc ñoom ci seen sincérité. Mm-hmm. ñu gis loolu wax ne gis nañ ko.

mais professeur est-ce que est-ce que est-ce que suñu euh, gouvernement lajjuñu ci communication ñàkk bi. waaw non mais dañ ci lajj lajj bu méttee métti. non lajj boobu moom defe naa ni ñoom sax reconnaître nañ ko parce que tey bu ñu demee ba heure bi nii mënaguñu am sax 10 pour cent de la population. waaw vacciné leen c' parce que. ba ay vaccin di yàqu. Euh, ay vaccin di yàqu ñu koy sànni. Mhm. loolu ça veut dire que ni effectivement c'est un échec qui est patent qui est là. maintenant nag. man li nga xam te ne mën naa ko cee jouer te nekkul sama rôle mooy. Mhm. woo nit ci nañu dem vacciné wu. Mhm vous avez le vaccin vous dose parce que ben, instant comme ngi dégg sax ñuy comme une troisième dose Sénégal ñu troisième quatrième dose non troisième quatrième dose le gars deux doses quoi effectivement mhm. autant autant je nit ñi ci mhm. deux doses deux doses mhm. mais man troisième et quatrième dose man man man dama ah. parce que tamit vaccin du garab bu ñuy ok vaccin. du garab bu ñuy scientifique yi. nañu def ndank touti quoi. parce que man musuma gis fièvre bo xamné dinañu jël ay ñàkk diko ko nit ñi ñàkk yu bare ni ci temps bu gatté ni vraiment non il faut qu'on fasse très attention. parce que tamit xamuñu lan la mëna indi après ci yaramu nit ki fi ak suba wala gannaaw suba wala fekk ay at yu bari ñu def ñaari dose man luma and la man jël naa sama ñaari dose hein su ma ko def loon tam dama naan defuma ko. mais nag ñu jëmati ci troisième dose gars yi di jaay vaccin non benn moment il faut qu'on il faut qu'on arrête. il faut qu'on arrête coronavirus. coronavirus du jóge ci àdduna bi. Mhm. mesure barrière yi. Mhm. baax na mais li ko gën a ëpp solo mooy vacciné wu parce que xam nga nit ñi nit ñi benn moment buñ la ko waxee buñ la ko waxul. dañuy sonn ci mesure barrière. dañuy sonn ci takk masque dañuy sonn ci dandante day tànd dem maa ngi samedi cleaning day président bi koy def. <laughs> turbine bi ah. hmm. président presque rek presque moo masque normalement. gis nga ñi mu dendal ministre hmm. a masque. même même dans les meetings d'investiture. mais, hein, mais, mais partout cest bon valable pour am na samedi xaw dimanche def caravane d'investiture à Guédiawaye. mu hmm. gis ay junni nit presque kenn takku ci masque ñuy ànd di yuuxu ma ne non bonjour quatrième vague quoi te loolu li koy indi mooy. Mhm. c'est pas parce que nit ñi sax dañoo xamadi wala dañoo tëj mais nit ñi ñoo sonn. quoi ñoo sonn waaw dañu sonn xam nga masque. Mhm. mënoo ko takk 24 heures sur 24 donc ni nit ñi dem vacciner wu. parce que même en France on a vu que même le gouvernement n'a pas n'a pas osé wax wax ay waxu couvre-feu. ak ak ak ak li nga xamantene moy mooy. Euh, euh, tëj nit ñi donc ils n'ont même pas osé parler de ça. Mais, parce que xam nañ gens. mais mais amener na dëkk amener des ne gis nga émeutes yi fa am. xeex fa am parce que gars yi dañ tëj bu ñu leen tëj dafa metti mm-hmm. mm. pour ñu génn ci loolu. Mm. nit ñi nañu dem vacciné wu. Mm-hmm. bu ñu vacciné ou, mm. dina wani, wani, mais même vaccin bon non, encore une fois mënta doon loo xam ne lu efficace la à 100 pour cent. ku mu leer ci ñi non mm-hmm. parce que euh, gis nga bépp feebar boo xam te ne dafay mën a dal nit mu wér mu dalaat ko mu wéraat mu dalaat ko souvent feebar bu mel mhm. vaccin bu efficace en 100 pour cent effectivement. xam nga vaccin bi efficace xam nga lan. Mhm. Fièvre wér mm. mooy premier vaccin naturel mm-hmm. à partir du moment où mën ngaa fièvre mm. wér mm. fièvre bi le la nga wéraat mu comme ni avons le coronavirus nga avons ne nit ñi da ngay gis koo xam def na ñetti yoon coronavirus wala ñeenti yoon ça veut dire que <laughs> ça veut dire que vaccin bu efficace à 100% du ci am mm-hmm. mais comme par hasard par hasard lañ gis ne vaccin bi de même bu fekkente ne où nga amaat amad bi mm-hmm. mais dina fexe ba doo def ay forme grave donc man je pense que ni jar na nit ni. nit ñi bàyyiwaat alors euh, pour terminer ci li nga xam ne mooy coronavirus ak vaccin communication bi nga xamante ne état bi euh, lajj ci est-ce que fu mu nekk nii ak notre ministre du euh, de la santé bi nga xamante ne mu ngi woon mairie bu Dakar. est-ce que vraiment on n'est pas est-ce que bàyyiwuñu sénégalais yi noonu rek ak seen ak seen bopp ak coronavirus bi euh, déjà lajj nañ ci communication bi ñu ngi ruum ruumee waxu quatrième vague donc affaire yi ñu ngi yéegaat ndànk-ndànk parce qu'on est à jusqu'à 5 à 6 cas ba tay bi ñëw ñu ngi ay 30 et quelques cas ah. alors que notre ministre de la santé fu mu nekk nii moom bëtam yëpp mu ngi ko teg ci Dakar mais est-ce que vraiment ñu ak suñu voilà xam nga loolu nag loolu mooy poser problématique wu léegi ñun gouver façon gouvernement yi ñu am gis nga bu njëkk ba mhm. Sénégal dafa doon ay ay ministres yoo xam te ne mhm. du ñu doon ay politique

ñu am jotu kenn. tey effectivement coronavirus mu ngi yéeg ñu ngi jëm ci sedd. Uh-huh. virus la yoo xam ne plus muy sedd. muy muy muy gën a law. ñu jëm ci ay ay campagne électorale yoo xam ne ay nit ay junni junni nit dañuy dajalo uh-huh. di yuuxu. Uh-huh. di di donc ingrédients yëpp ñu ngi fi fu ñu toll nii pour pour ñu am quatrième vague. waaw loolu nag c'est dommage parce que tey bu fekkonte ne am nañu un ministre boo xam ne tey. c'est un homme de la santé nga xamné ne nekul ci xëccoo ji ay mairie wala yuma xamul day tok garder temple bi waaw nek toujours veille di xol mais bo jëlé un ministre bo xamné mom instant bi ni liko intéressé moy moy moy moy moy moy élection yi jëlé élection yi mairie bu ah, Dakar ki dem vendredi dernier mhm. euh, ñu ngi sargal professeur yi nga xamné dañoo agrégé daw jéeg agrégé daw mhm. ci médecine pharmacie chirurgie dentaire ak vétérinaire Mm-hmm. ay jambar mm-hmm. ñu def ay performance yu am solo. Mm-hmm. ñu leen di sargal grand théâtre au début dañ ne président day ñëw bon malheureusement xam naa ne président dafa am ngànt ñëwul. ñu ne non président moom bu ñëwul au moins ministre bi ministre de l'enseignement, c'est seen ministre quand même de tutelle. loolu cérémonie bu am solo la. ñu ne dina ñëw ministre bi jaaru fa. finalement waxuma la sax directeur de cabinet benn conseiller boo xam ne heureusement moo ñëw sauver mbir yi ta conseil bi professeur de médecine la comme ñom hmm. nga xamné mom xamna li l'eau importance ñu am. Hmm. Hmm. loolu xam nga bi metti dama non parce que taluñu leen loolu. en ce moment taluñu leen. donc donc il est important que yenn postes yi. ñu dépolitiser ko santé au Sénégal dañ ko politiser ba. ni moron waroon deug gdg dëgg dëgg. Euh, doxewul non te ça c'est dommage. Euh, rapidement euh, walum enseignement supérieur donc ak jafe-jafe yi ñuy pour pour yow c'est quoi la solution ci enseignement supérieur non enseignement supérieur lu ñu war repenser la dañ ko war repenser dans sa globalité parce que xam nga nous, mhm. ñun man dama dama soqe ko ci système enseignement supérieur bi mal, mhm. jàngee université Cheikh Anta Diop de Dakar suis allé dem France nekk ci dans ci hôpitaux yi plus grands mag ci France nga xam ne man liggéey hôpital civil de Strasbourg pendant presque 5 ans dem naa fi Japon ci ay hôpitaux yu nekk Japon avant may génn Sénégal di dem France di yeggali ji suma jàng di liggéey ji foofu. Mhm. dama doon am tiitaange naan man est-ce que liñ ma jàngal euh, est-ce que bu ma demee tubaab yi. gis nga bi ñu demee tubaab yi dañu leen wan xam-xam boo xam ne ñoo leen ëppoon xam-xam téeméeri junni yoon. ba nga xam ne mhm. ñun ñëpp bi ñuy ñibbisi. luñu ñu mën ci yeew ñu rek moo desoon pour ñu bañ a ñëw ñu bañ a ñëw lu mën a wax ci àdduna man ba dem France mhm. di dama demoon juste pour un an wala deux ans mhm. cinq ans laa fa def donc système bu bu baax la ñu amoon mhm. ñu toog benn instant di toppandoo tubaab bi xam nga Sénégal dafa mën toppandoo quoi dañuy toog copier benn système boo xam te ne dëkk bañ ko copier indi ko suñ dëkk bokkuñu ay même réalité bokkuñu même moyen bokkuñu même situation léegi nag lan lay indi eh, la nga amone a néew nga ñàkk ko tay man je ne rien contre génération bi nga xamné ne ñoo génn. Mhm. parce que tamit ñom liñ leen jangal rek lañ mëna xam. effectivement mais tay am nañ système bo xamné niveau bi niveau Sénégal. Mhm. niveau enseignement supérieur. wacc na ben wacc bo xamné tay bo dajé un étudiant bu nekk université nekk en licence wala en maîtrise pour mu toog làkkal la tuba bu jub normalement rek sax da ngay am problème bob non pour lool légui nak ñu gëm toog di nax suñu bop yeneen dëkk di ñu raw man dëkk yu bëri dama fay enseigner. Uh-huh. Afrique am na dëkk yoo xam ne ba ma fa njëkkee dem dama découragé ba ne non fii du ma fi ñëwaat parce que ñii seen niveau vraiment. Uh-huh. dafa faible moo ëpp. Uh-huh. bi ma fay mujj nii cinq ans après. seen niveau moo ëpp niveau étudiant waa Sénégal. te kanam la jëm parce que parce que euh, li ñu war a def. pour suñu enseignement supérieur ñañ fa war a teg ñu war a am xam-xamu changer mbir yi teguñu la ministre non ah. politique politique non ça du Sénégal mhm. dix dernières années il faut que quand même nous revenir à à l'essentiel Nous ñi mais on a tous les hommes qu'il faut à la place qu'il ne faut pas mais lolu nak de plus en plus ko mhm. même de plus en plus il bi mhm. gis nga bo am yenn xam-xam yi. Hmm. am nga problème. tu déranges en fait. non non yow dañ lay. loolu laa la bëggoon wax léegi. non da yéen yéen au finish da ngeen di déranger. les les les politiques et tout ça. non au début sax man leeru woon quoi dama doon douter mais léegi. <laughs> léegi leer dafa leer ni. waay non boo amee yenn profil yi da ngay nuuru quoi. Ouais, même ci corona bi on a vu tous ouais, tout oh. tous les problèmes que certains professeurs ont eu avec ouais, avec ministère bi tout ça réew nak mënoo koo tabax ci tabaxine bo xamné da ngay jël ñi am xam-xam mhm. jël len écarté len feulé mhm. teg ay nit parce que ñoñu dañuy xëy di politique suba bo woon lolu taxul réew jëm kanam mhm. ta malheureusement Sénégal so xolé ñi politique ñi ci ëpp ci ñi politique moy ñi nga xamné amuñu métier une formation à formation, xam c'est un refus en fait. non non non C'est devenu xam effectivement. ça à dire que malheureusement nit ñi nga nous ne. Mhm. xamatuñu fu ñu mhm. métier. Mhm. école. fan dem politique. alors que dans les pays développés. en France qui' y a débats débat amu ci benn homme politique bu amul qualification bu sori. dañuy am xam-xam bu leer. ci li ñuy wax. mais lool nak defe naa lool mo meuna tax. pas pas plus que avant-hier ci ci primaire France yi. Ah, bi ah. bi ma gis euh, un peu le parcours de certains. candidats quand même tu dis waaw. c'est des gens yoo xamante ah professeur. vous euh, mettez ni suñu émission jeex na. Mm-hmm. alors ci une wala deux minutes rek euh, bo doon wax ak wa Géej wala wa Sam Notaire lan nga len di wax. waaw waa Géejawaay ak waa Sam li ma leen di wax rek mooy di leen euh, tàllalaat loxo pour ñu xam ne occasion bi ñu am nii ci élection yi nii dootuñu ko gaaw a am fii lañ mën a nangoo li nga xam te ne nii ñun ñoo ko moomoon jox ko ñoo xam te ne nii jar ñu ko jox ma leen di woo ci ñu wooteel euh, parti bi nga xam ne moom lañ tuddee union citoyenne bunt bi ah muy carte bu bleu euh, dinañu ñu ngi dox ci dëkk bi leen wan spécimen yi am nañu yéene am na ñu yaakaar am nañu yërmaande ci waa Géejawaay parce que ñun waa Géejawaay lañu. nit ki fi nga soqeekowul munoo am sensibilité munoo am yërmaande bi nga xam ne nii moom la euh, ki nga xam ne soqeekoo fa euh, moom lay am. donc Sénégal yëpp ñu ngi xaar pendant sept ans ñu indil ñu koo xam ne dëkkul ci ñun ñu koy reetaanee. koo xam ne tey jii li mu yàq Géejawaay moo ëpp li mu fa defar jot na ñu nanguwaat li ñu moom.

un petit dernier mot. Oui, mais xana nak di len gërëm di len vraiment parce que yow ñëpp liggéey bu rafet bi ko def ci paysage médiatique bi. Mhm. télé bi ñu vraiment mu dem ba ci télé yi ëpp solo. ci magnifier professionnalisme. di magnifier sa yar vraiment. nga la la ñëpp ah, di ñaanal merci beaucoup le professeur euh, euh, Modou ñu gën xam des candidats di candidat ci ville bu avec Sam Notaire mais aussi des professeur agrégé des universités du Sénégal limone konsen nekkoon seen euh, Actu Show on se retrouve demain ci beneen numéro bu Show d'ici là portez-vous très très bien avec les programmes de Malika TV l'air Maudo.